Euh, mu daal di war a exactement ligéyam mu daal di euh, nekk coow li nga xam dem tam judd na Alioune aussi su guddi gi génnaat ni euh Sénégalais déglu naa donc Ousmane Sonko maa kay koy ci si coow bopom hmm. mu waxtaan ka ak ki nga xam nek modi jomay di ñu xol lan la déduire entre eux soray dem assemblée na fa dem soray tok primature tamit na fa toog waaye moom su sañoon Sonko dem fo saanu pencub euh, na réew exactement afin non donc aussi ñu bëri daal di par rapport ak Ousmane Sonko foofu assemblée nationale est-ce que japonais une fois à l'assemblée Sonko dina gën yok légitimité concrètement à Ousmane Sonko est légitime jarul dem. assemblée nationale du ah Ousmane Sonko est légitime. je n'ai pas dit que. jarul dem sa assemblée nationale pour être légitime il est toujours légitime. ku fal président ku joxoñ ne leen ni waa ji laa bëgg a ñu fal président ñu fal ko. est ce que ñoo fal président bi dama ne fallu loolu wax ju yàqu ngay wax nii. Hmm. mais fa il faut respecter ses voix. donc loolu dama ne loolu moo am donc Ousmane Sonko aussi Diomaye. Ousmane Sonko fu mais fa il faut arrêter ce que tu il faut respecter Diomaye. sénégalais ñoo ko fal. yow yow tey ngay respecter Diomaye man maa la gën a respecter Diomaye. waaw demoon ñu il faut arrêter ce que tu dis. éviter ngeen ne Sonko. dama ne yéen yéen quand ça vous arrange. Ah. vous êtes d'accord quand ça vous arrange euh, quand ça ne vous arrange pas vous n'êtes pas d'accord parce que yéen Benno Bokk a fallu fallo non c'est ça la réalité. yo Macky Sall nga ànd <laughs> Sénégalais xam ko. donc yo tey une félicité tey une respecter man ñun bu ñuy wax son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay yéen a taxaw fi di naan li ak lii hein, kii am bi méngoowul ak président li am li li am li nous on a défendu on a défendu la cause xana yo tey ngay taxaw di di di défendre ñëw si Moustapha Diakhaté yow mi fallu ah, c'est notre président c'est notre président alors donc dama ne il faut ñu défendre ko dama ne Ousmane président Bassirou Diomaye dama ne Ousmane Sonko ko défendre

heureusement <laughs> damay félicité, Alioune Tine heureusement il nous a écouté très mm. bien mm. il nous a écouté c'est pas à lui de donner des leçons à Pastef ni que Ousmane Sonko Warna dem assemblée wala war na c'est pas à eux de dire à Pastef de dicter à Pastef lu ñu def Pastef c'est tout un ensemble Ñom ñoy toog xol lu leen arrangé lu baax ci ñom ñu def ko la concertation entre le président de la république et son premier ministre et le parti PASTEF ñu ñu ko sekkal ñoom ñoo war déduire lu baax ci nous wala ñu lu baax premier ministre bi Ousmane Sonko ndax war na continuer toog primature voilà dem assemblée nationale. mais concernant ce lobby le lobby qui biy taxaw tey dina am Ousmane Sonko. na ah, dem assemblée nationale na dem assemblée nationale foofu lay gënee am légitimité. lobby wala Ousmane Sonko na dem assemblée nationale foofu la gagner am sécurité il sera la première, la deuxième institution du pays, voilà la deuxième amphore du pays. Ni wax lolu yépp tay lañ ko commencé wax Ñom sen bu Pastef du mës gagner gagné élection Sénégal Sen pexé bu soti won ma laay wax de ñi taxaw tay Ousmane Sonko demal assemblée nationale wala bu Ousmane Sonko du ak Pastef du ñu gagner a élection parce que wuñu ko. Non, non, c'est ça la réalité mais comme on le dit on n'arrête pas la mer avec ses bras maam yalla buy taw yo ngay fobéré sinon yo yay sonal sa sa bop moo tax tey mënuñu ci dara. non maintenant lu ñu mën a def. Alioune dafa am euh, rôle bu. am rôle bu mu joué pour Alioune c'est euh, carrière Ousmane Sonko. je ne parle pas pour Alioune Alioune yàgg na défendre Ousmane Sonko. si kanam Macky Sall déglu am naa seen boolu ceeb bi affaire ñu koy je ne parle pas pour Alioune Tine je suis en train de parler dans le cadre général. Mm-hmm. dama il y a un lobby qui est au Sénégal c'est un bu sotti woon waa Pastef bu ñu mës élection gagné nañ le président son excellence Bassirou Diomaye Faye du mës a monsieur le président Ousmane Sonko mësuñu ko ça ben n'a poste bu ndaw asatama nga ne ma premier ministre. mais enfin Diomaye dafa Nous mësuñu ko yéene Ousmane Sonko Et ñoom c'est ces gens là. avec de mauvaises fois avec de mauvaises fois ah ces gens-là ñooy taxaw tey di naan Ousmane Sonko demal assemblée nationale bail primature demal assemblée nationale aujourd'hui nous ko bañoon nous ñu bañoon Ousmane Sonko démb Nous ñooy taxaw soi-disant des conseillers à lui directement Du coup, non, non wàccal primature demal assemblée nationale foofu ngay à mes légitimité non tu vois mais je rêve ou quoi je rêve ou quoi ñu ne ko oui tête de liste ñaata tête de liste ñoo fi mës a té te mësuñu dem assemblée nationale. après avoir en 2000. ñaata tête de liste ñoo fi mësoon jité ay liste ba pare mësuñu nek ay président assemblée nationale. Mimi Touré on woon fi liste Benno Bokk Yaakaar dem assemblée nationale nakul président de l'assemblée nationale. Macky Sall jiite woon na liste ba paré nakul député té bi ni jité na ko ba paré du nek député am wala amoon. Hmm. Boun Abdallah Dionne jiitoo nañu fille, liste euh, député député donc Ousmane Sonko assemblée nationale nous ñooñu Ousmane Sonko la isolé qui comme ça nous ñu atteindre Ousmane euh, c'est ça la réalité oui ñii taxaw dina ni Diomaye moo Ousmane Sonko mo def. non non kenn Ousmane Sonko. non mais c'est ça. non man je ne dama ne ci campagne bi lan lañ doon wax. non Ousmane dañuy dem ci ay plateau. may avons Ndour ñu non jomay dafa bax, jomay ku bax la mais problème bi kenen ki la. Ki kenen gis nga manipulation bi campagne bi dina jomay dafa bax, problème bi kenen ki la Ñom ñoo ñëwaat ne kenen ki demal assemblée nationale. sa place la nek légitimité Fofu ngay gëné légitimité. Mm-hmm voilà les discours il nous doon wax ci jamono campagne bi ba tey léegi nouvel discours ce nouveau discours yi mooy maanaam ku ñu bañoon ku ñu que momo moo gën a sikk la ñuy bëgg a envoyé à l'assemblée nationale ko demal foofu nga isolé wu foofu bàyyi ñu ak jomaay parce que premier ministre bu mu premier ministre il leur dérange Ousmane Sonko dérange beaucoup de gens. Ousmane Sonko dox na fii ci tapis rouge ñu ne ko xool ko <laughs> warul dox ci tapis rouge. Hmm. mu tontu leen mu ne la bu soobee ci yàlla. tapis rouge bi dinaa ko dox dinaa fa dox dox dox ba sama tànk yi di kii mooy daanaka suñu yéene Ousmane ko dara dox ci tapis rouge sax sant xanaa kay man mii sax dox naa ci tapis rouge sëñ Fallou. Hmm. xanaa man mii Arfan simple journaliste man dox naa ci tapis rouge. Ousmane ko Diomaye invité ko ñuy tukki ci début bi ñuy tukki fu ma fu muy Diomaye di tukki ñu ànd ak Ousmane ko ñu ne ko non non ko Sonko mu bàyyi na na bàyyi président mu tukkil moom kese président invité ko ñu dox ci tapis rouge ñu ne ko xool ko warul dox ci tapis rouge <laughs> tu vois ko yéene dara c'est ces mêmes personnes ñoom ñooy ñëwaat tey di ko jéem a xelal soi-disant woyaay yooyu ñoom dañ koy xelal ñu ne ko woy demal assemblée nationale sa place foofu la gën am légitime demal baye fi primature primature danaka décret décret mo la fi baye, mën nga un jour xey le président Diomaye génnee décret ne dàq na la donc fofu tu n'es pas en sécurité Ousmane Sonko mo leen gëna xam mom lu mu bëgg ak primature bi, hmm. bi il va faire cinq ans là-bas sous décidé tog primature ce 10 gis jomaay mu Ousmane Sonko a mais le président de la ville ne fera jamais ça c'est une grosse grosse erreur beaucoup ko il ne va jamais faire ça Ousmane Sonko poste bu mu fay nek ba poste bi ko man poste bi damay dem ci su peut-être. est-ce que comprendre nga il faut que ngeen xam ce que les gens ont réussi à faire ci diggante ce que les gens ont réussi à faire ci diggante Macky Sall ak Aliou Badara Cissé wala Macky Sall ak Amadou Ba wala Ablawat ak Idrissa Seck ak Abdou Diouf ak ki du ñu ko mën a ci que ak Sonko parce que bokkul paramètre bi du ben yi dañuy ànd ba dara nekul dara dañoo yàgg dañoo dix ans dans l'opposition ils ont créé le parti PASTEF nous woon xalaat ni dinañu ay député musuñu woon que président de la république nous woon dinañu que premier ministre boobu la ñu dalee ba donc il y a une très grande différence entre Diomaye ak Sonko une très grande différence mm. donc les ennemis d'aujourd'hui ils n'ont qu'à aller dormir tranquillement parce que nous sommes dans les andes bon dégguñu won monsieur le maire Ousmane Sonko déggul won monsieur le maire de Gigansor, déggul won monsieur le député avec plus Forest déggul won dara moy manam il a été radié dans la fonction publique ñu radié ko ñu ñëw créer le parti ñi doxal ñom ñaar yi ak ñeneen ni donc aujourd'hui quand des gens veulent s'interposer entre Sonko ak Diomaye <laughs> ils se trompent ils se trompent ay ñom Cheikh yerim sek ay ñom madjambal Diagne ay ñom ñenen ak ñenen les monsieur Diom sente ñenen ak ñeneen ah, da nga jàpp ni. Euh, donc donc ñooñu ils n'ont qu'à aller dormir tranquillement et laisser euh, parti Pastef ñom ñu choisir ndax Ousmane Sonko warna dem assemblée nationale parti Pastef moy choisir. mais ñoom dina am ndax Ousmane Sonko war dem assemblée nationale warna warna war continuer du toog primature. Mm, du euh, coordonner. du coordonner. les grands sentiers du coordonner les grands sentiers ñoom ñoo joxe seen ay appréciation Arfan rek ñoom euh, tamit dañ leen koy nangul des fois. parce que bu mu nekké ci jafé jafe mësuñu joxé sen xalaat ci sens bobu il a dit je répète textuellement ses propos s'il faut tuer 90 personnes pour Sénégal am jàmm man Cheikh Yérim Seck d'accord na mu def nii loxoom ni mel ni dafa téye lu lu tàng mel ni lu tàng la téye man Cheikh Yérim s'il faut téye quatre personnes pour Sénégal mën a am jàmm mu def ni loxo yi mel ni lu tàng la yor man Cheikh d'accord na aujourd'hui il est donneur de leçon il est conseiller direct à Ousmane Sonko voilà au parti Pastef

L'Adel Macky Sall Il mu créer le conglomérat de de de de de de journalistes palais. Hmm. il a créé un conglomérat de journalistes palais comme soi-disant ay conseillers Ousmane tunkara comment il s'appelle tunkara Ousmane Tunkara. non Tunkara. Tounkara Tunkara. Tounkara. Hmm. Abdoulatif latif koulibaly Mbaye. Cheikh Yérim Yoro Madiambal hmm j'en passe beaucoup de journalistes la Macky Sall ba mu créer ces journalistes là yóbbu pas palais lan la ko il faut demander à Makissal. Sall. Hmm. dem leen ngeen laaju Macky Sall lan la ko alors moo tax ma la ñooñu c'est pas c'est pas des conseils c'est pas des journalistes ñu ngi ñu ngay ñu ngay ñu ñu ngay pour nous conseiller la. Hmm. parce que nous conseil la. xam nga lan lañ lay waxal. Hmm. lu arrangé lu arranger seen poste ñoom lu lañ xam mais lola la arrangé yow ñom duñ la ko mës d'une wax duñ la ko mës wax arrangé président bi moy manam Macky Sall dóoreel da nga wara a di ku la bu ko bal da ngay population Sénégal population bu immature la lendemain lañ doon xelal mm. le parti passef amul majorité amul ay nit parti réseaux sociaux yi la xale yi ngay gis ñi sa d'ailleurs ñuy topp Ousmane Sonko amuñu carte d'électeur loolu kese lañ doon xelal Macky Sall Macky Sall tamit gëm loolu di dóor di yóbbu Ousmane Sonko kaso di naan mën nga tas parti Pastef te dara du xew ñoom ñoo ko doon xelal ñu xëy rek ne Antoine Diop Antoine jom jàppal Ousmane Sonko ba pare nga tas parti bi ba pare nga jàpp ay jegenaale Ousmane Sonko yóbbu leen ci kaso bi dara du xew mais bu ñu doon bu bu fekkee Macky Sall dafa amoon ay conseils yu baax. dañ koy ne hé. depuis Adji Sarr problème Adji Sarr bi dañ koy ne hé. Hmm. Hmm. affaire bii nii bu mu jëm kaw. comme maire bi nu mu koy waxee. alors c'est clair affaire bi teel ko freiné. alors ba pare nga bàyyi Ousmane Sonko mu am liberté am. alors parce que Macky Sall bokk na ci ñu créer Ousmane Sonko. parce que le peuple sénégalais bëgguñu ku ñuy xoñoñal.